waa gars yi ñu ngi leen di nuyu di leen tey war a ñëw ci saa si bi nga xam ne woon naa benn transfert ci benn club bu nekk deuxième division Espagne ñu koy wax Granada mu nekk transfert boo xam ne mi ngi mi ngi woon am novembre 2022 mais nag dañ ñëw ci li mais laataa loolu dañuy wax yi ñi gan ci page bi ngeen abonné te ngeen pour ngeen am suñu vidéo au temps réel ñëw ci ki mooy comme ni nga ko waxoon keroog ci transfert bi nga xam ne mooy euh, euh, Manchester United bi tey nag ñoo ngi benn transfert boo xam ne boo duggee dina seet nag gis benn équipe la woon dem bu nekk dina dugg Espagne ñu koy wax Granada transfert bi lépp yem man ñoo nañoo wax wante nag lenn rek mooy wax transfert bi mooy boo xoolee course bi ko bëggoon ca jamono booba tay baaxul lool ba waa Granada dañoo mujj daal course bi léegi kon da ngay xam ne Saliou Ciss amul avantage pour waa mën a dem ci course ci ndax damay wax Jacques course ak plan ak ay joueurs yoo xam ne mën a sibilé yu bëgg mais beneen mu ñëwee Saliou Ciss bokk ci yi nga xam ne. civil navy kon loolu moo teem dem ca Granada nekk la boo xam ne muy nekk deuxième division bu Espagne nekk la boo xam ne mën nañu wax Sadio Cissé bu demoon ci mondial bi jaar mën na faa teew war naa mën a xeex ba club bi yëg na mën a tamit ay performance yu réer yoo xam ne day marqué empreinte bu baax a baax ci football mondial ndax Sadio Cissé joueur bu am talent toujours bu bu duggee maxi day gis ne day wane boppam mais nag rek mooy ay problème amul argent man maanaam club boo xam ne dafay yàgg di gëm naa loolu bu ko defante fii solo nekk dafay nekk di chaque année mu ñëw coupe du di ko toj ak ñu ko tudd lu bëree bëri ci football Sénégal mais nag damay wax souvent xale bi euh, carrière am bari na ay problème bari na ay difficulté mais teewul xeex na ba bokk ci ñi nga xam ne Sénégal dañ koy suivre Sénégal dañ koy yaakaar bu baax a baax mais daal saa yu siis faral li faral dem transfert bi lu bare bëri la mais ñu ngi ñaanal xale bi moom kërëb mën a ñëwaat def performance bu baax a baax daal 32 ans ah waaye nag boo nekk ab latéral boo xawee jëm jëm mu jël aas nii pour ngay fubal day jafe il faut doo mën a fubal maximum jàttaag mais daal lu mën taam ñu ni koy xaar ci kan bi ñu jëm muy 2004 bi te war na fa a bi a jël kan bi te am na ci yaakaar baax baax ndax xale bi gëm liggéey la ku gëm li mu def la ku am fulla la te ku man li def la ndax don ak talent du réer te loolu lu ne ci moom la talent bi moo ne moom baal traîner dugg ci terrain bi mën a tooyal mbéy mi kon gars yi wéy di abonné di commentaire di partage di like yi nga ñëw xaar si suñu seen Normal Sport ak yeneen vidéo merci beaucoup sama gars yi am ngeen jaajëf bu baax a baax a baax a baax